برهام باء وراء ألف ثم هاء ميم مجل فيض تيجان جخن نينان الحمد لله والعبد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله رسول الله ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بظفر ولو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ما يسنتي الله بباح ci xéewal gi mu ñu xéewal mooy xommat ñu tey ñun ñëpp ñu ñëw fii njaayeen ngir xeeñtu mbaax ngir xeeñtu wilaaya alors ngir xeeñtu mbaax ngir daje ziyaarayante ngir yàlla ci ron koo xam ne amu sikki ne yàlla gërëm na ko te kum gërëm nga làq ngir maa yàlla muy Mawlaaya Cheikh Mouhamadul Amin Cheikh Ibrahim Niass maa ngi nuyu suma kilifa yi ma fi fekk suñu nijaay suñu baay Cheikh Mouhamadul Bachir ibn Alhaaj Mouhamad Zeynab suñu baay xalifa Taïba Ñangeen Cheikh Ahmad Boucar suñu ak rakam Cheikh Abdoul Karim waaye ak suñu sang yu baax yi ñu fi fekk Cheikh Seydi Ali ibn Xalifa Alhaaj Abdullahi Niass ak ñi mel ni moom ak suñu mag cheikh Ibrahim mu cheikh Mouhamadul Amin di ko gërëm bu baax ci teraanga gi ñu defal ñu mooy ñu taxaw rek sànni ay baat yoo xam ne mën naa mu naayoo dugg ci nopp sëriñ bi te bu ci amee ngërmandeem rek ñun loolu day nañu àddina ak alaxira di gërëm suñu sang yi nga xam ne ñoo toog dend ak moom muy cheikh Mahamadul Moustapha ibnul Khalifa cheikh Mahamadul Mahi ak rakam cheikh Abdullahi ibnul cheikh Mahi al Khalifa tey moom xam naa ne comme maa ngi jàkkaarloog sang yi lépp dafay baax incha allah. comme thème bi ñuy jox mooy jeexitalu sant yàlla ci woy sant yi dama sob soblu rek ne man dama koy duggee ci Cheikh Mouhamadul Amin ndax yàlla mën nañoo sant ñi nga xam ne ñoom la jaarale ci ñoom ay xéewalam ba mu agsi ci ñun te képp koo xam ne rek taalibe Cheikh Ibrahim nga mën ngaa wax ne xéewal jugee na bés ci Cheikh Mouhamadul Amin dugg ci sa xol dugg ci sa roxo ndax xéewal weesu wut jëmm joo xam ne boo ko gisee fàttaliku yàlla borom mursidul mahin ba muy melal sëriñ mooy koo xam ne ah, boo ko gisee mu fàttali la yàlla dëgg dëgg maanaam moomu Cheikh Mouhamadul Amin moo ko symbolisé boo ko gisee sa xel daj yàlla ku nekk ci ñun rek am na bés sa xol tooy nga dund ak cell goo xam ne sa diggante digganteeg sa borom ci wettali ko yàlla yàlla ak tudd yàllaam la ak yàlla ak fàttali ñu yàlla ci waxtu wu nekk la kon bu ñuy wax jeexitali sant yàlla ci woy sant yi bu ñu waxtaanee ci moom ci buntab taxaddus bi am yàlla moo ñu digalu amma bi niamati rabbika fa xadis ñuy waxtaanee xéewal yi mu dëtt ci ñun bu ñu waxee ay baat ci mu ñu moom comme mu nekk tamhid wala introduction ci thème bi dafay nekk loo xam ne lu rafet lay doon lu mat lay doon dafa nekk kenn ci doomi Mawlana Cheikh Ibrahim Niass radiallahu anhu doomi Baye nag doy na cër ndax Baye moo ne woon xir lii saxban fudala wa xir lii min kulli cheyin xayrahu wa kun lii yow yàllam tànnal ma àndandoor yi gën te lu ne rek nanga ma ca tànnal la gën mu teg ci ne di wax ak ñoom doomam yooyu ba mu leen ebal ñuy jàngi xaaxira ne leen dama leen a sàkku ci xëy bu dans le monde du mystère boobu ñëwaguñ fii ngeen am te bu ngeen xamee ngeen nekk di ay wàllu yi yàlla ngeen feeñ fii ci naasuut ma tuddee leen sama soppe sama reeni xol bu yenentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam mu tudd ci cheikh Mouhamad Nazir tudd fi cheikh Mouhamadul Mahi tudd ci Baba lamin tuddee ko Aminul Wahyi ki nga xam ne mooy sàmm waxyu gi le gardien de la révélation muy tur ci tur yenentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam sallam loolu di cër bu rëy waaye mu bokk ci ñi nga xam ne ci njaboot gi dañoo am sëriñ bi Cheikh Ibrahim seen waajur dafa amoon yaakaar wu rëy ci ñoom bi mu gënee àdduna rek euh, di bésab talaata ci rabiu saani Cheikh Ibrahim dafa tuddaguñ ko sax tànnalaguñ ko tur sax mu bind mag ñëpp lettre di leen yëgal ne gënee na àdduna lettre baa ngi nii man bi ci sama maam Alaaji Maam Abdu jotoon mi ngi nii ma tiim euh, باي دي واخ نه داف كو سيدي علي سيسي رضي الله عنه الحمد لله به وبما وراه صلى الله عليه وعلى اله مصطفاه ومجتباه ورضي عن الخدم التجاني مثواه الذي هو اساسه ومبناه وبعد فيصل الكتاب لحضره المحب الحبيب القدوه الكامل المكمل للتهذيب خادم حضرتنا الصادق المحبه فينا وحافظ ادابها في سرنا ونجوانا العارف بالله المتحقق بمولاه حقا وحقيقة وحقائقا المفسر مع عبد بن سيد أحمد يلي الإعلام والترحيب والإكرام بأن حليلتنا عائشة صار قد أتت بابن في يوم الثلاثاء الماضي وبلغ خبره إلى الإخوان الأحباب والسلام عليكم أدام الله عزكم ورفعتكم كون dafa gën a jamono sëriñ bi tànnal ko tur sax mi oo soppe yi ak tànne fii di leen ko yëgal loolu bu amee moy yakali serigne bi ci ci mom bi mi am juroom ben weer wala juroom ben weer yu manqué rek Cheikh Ibrahim dafa am mashhad ci mom baye dafa gis na mi ngi tew ci kanam Mouhamad Lamine wulu bëddi Mouhamad Lamine wulu bëddi boko beugé xam domi Ahmadu Ahmadu di doomi bëddi wulu siidi na borom tahaniyatu khalifa Cheikh Tidiane bu mag bobu di khalifa Cheikh al hafid Alawi Chenghiti bàyyi dafa gént teew ci kanamam ànd ak Cheikh Mouhamadul Amin boobu mi ngi raam muy dox jëm ci Mouhamadul Amin lu bëddi muy ku bàyyi fonkoon bokk na ci njox bàyyi lijaasa moog Mouhamad Saïd bàyyi mu ne mu ne baaba xanaa da nga bëgg a ziyaare ji bàyyi fopp ko mu ne teg ko ci ñaari oomu Mouhamad Lamine wulu bëddi bàyyi nettali fa benn anecdote mu ne am na ku teewoon ci jotaay mën na mën na mooy Ahmadou doomi Mouhamadou Hafiz mi jëlee woon tariqa bi Cheikh Cheikh Ahmad Tidiane mu ne am na ko mas a teew ci jotaayam ne ko defar defaral sama doom téere ndax xoli bàyyi yeneen ci moom nga li nga ciy déggee mooy ne bàyyi li mébét mooy xolam ak yaakaaram ci Cheikh Mouhamadoul Amine tabbi loolu lay jottaliku ci kanam xalifa Cheikh Ahmad Tidiane boobu di Mouhamadoul Amine walu bëddi mu ne Mouhamadou Amine teg baaba ci ay oomam mu mel ni te góor la mu mel ni weenam meewa ciy génn muy meew mu sell mu ne mu koy nàmpal Cheikh Mouhamadul Amin loolu loo ciy déggee mooy tëbboom ci Cheikh Ahmadu Tidiane yi ak tëbboom ci tariqa bi te loolu yàlla teel na ko woon Cheikh Ibrahima radiallahu anhu ndax gis naa lettre euh, machad bi ci weeru Ramadan la 1359 mais am na beneen lettre bu bàyyi bind kenn ci mag ñi naan ko ñaanalal bu baax sama doom Mouhamadul Amin Muhiddin la ko bàyyi tuddee foofu mooy kan mooy ki nga xam ne moo naayoo dundal diine ji lettre bi machad bi mi ngi nii ci mbind Cheikh Ibrahima tiim ko. bàyyi jànguloo leen alquran mu teel ko wattu ba ko bàyyi di yóbbu azhar sax ànd ak moom mi ngi naan Cheikh Chaltu kii moom dama leen ko jox hadiya jox naa ko azhar ñu ne bàyyi ne ko wattu na alquran mu tariloo ba baaba alquran baaba tari suratul baqara ba mu jeex xam naa ne sigil na Cheikh Ibrahim radiallahu anhu ci kanam ay nawleen mu jàngee foofu xam-xam am fa diplôme yi gën a kawe man gis naa liste bi gouvernement Sénégal def ci jamono jooju boursiers yi doon def étude supérieure ñaari nit rek la mom man mom la ci xam muy Cheikh Mouhamadul Amin lii ma tiim nii di baccalauréat bam ñëk jëlé fofu Égypte ci souf ñang koy ñaanal la leen bàyyi ñaanaloon ci lettre de mission bam leen joxoon ba jàngi moy wallahu taala nasalu an yuwaffiqahu li khidmati al-ilm wa ad-din wa Azhar ñu ñi ñaanal baba yàlla may ko ak dëppale ci mu liggéeyal diine ji waaye mu liggéeyal xam-xam yaa yaakaar naa ne loolu ku teew fii xam nga ne ñaan googu nangu na ndax ñaani bàyyi la woon maa ngi tiim nii ijaaza bi ko bàyyi bindal mu ijaaza boo xam ne cérémonial bi ci ànd rek war naa mën a xelaat loo képp koo xam ne rek borom xel la ndax bàyyi daf ko bindal ijaaza mooy ijaaza bi ma tiim loolu mbindam bàyyi la mu ne alhamdulilah mu bind ci suuf lijaaza ba alhamdulilahi waladi jisman wa ruuxan wa insha allahu al awnu ala mustaqbali tariqi wa xatti al ustaaz Mouhamadul Amin Ibrahim Niass تجد هنا مجموعة صالحة من الأسانيد تجد بها نفسك في ملأ من الصالحين حملة الشعلة فاحتفظ على هذه الأمانة الغالية واقدر واقدرها حق قدرها فإني أعهد بها إليك عهدا لتخدم هذا الدين وهذه الطريقة حتى نلتقي أمام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والشيخ تجاني رضي الله عنه وإني كما قال الشاعر أهيم بدعد ما حييت وإن أمت وكل بدعد من يهم بها بعدي lim tàmbalee wax ji rek mooy yow sama doom ci jëmm ak ci roxo nga gis ne ñaari cër la ko yàlla jox foofu mooy doomi roxu la te doomi deret la te bàyyi ko ko seddeel mu ne ko boo xoolee asaanii di chaîne de transmission d'autorisation yi ma jox la ci tariqa bi te bàyyi dajale na ci juróom fukk ak ñaar yëpp ma jébbal la ko nga fekk sa bopp ci mbooloo mu sell mi loolu dana la dolli responsabilité nga xam ne ah doo ko ndaw ci nit ñi ñëw yi ne yàlla boole te bokk nga ci la flambeau ñi téye drapeau bi drapeau oote jëm ci yàlla te maa ngi jël ci yow kóllëre ne da liggéeyal diine ji ak tariqa bi ba ba ñuy dajee ci kanam yàlla ak yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ak kanam Cheikh Tidiane radiyallahu anhu mu tëjee ko ne maa ngi wax la waykat ba waxoon ne man dey damaa jeex tàkk ci jongama yi ñuy wax daad boo demee ba fiy jógee nag mbëggeel googu danaa la ko bàyyee nga di ma ko sàmmal loolu mooy lan mooy le le légataire de l'amour de Cheikh Ibrahim pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wasallam mooy donnu mbëggeel yi yonentu yàlla Muhammad gi nga xam ne moom la bàyyi amoon moo tax waajo doon tar tarbiye ca Sudan oo baaba téléphone baaba ne ko yàlla may naa la suma xol bi yal na la yàlla may fatu ma ne ko yow am nga problème parce que xoli baaba bi attanoo ko waa ji boobu ba léegi ci jooyee rek ak zikar ca la ne ma ne ko xam naa ne xol bi ñu la monteel moom nga attanut ndax xol boo xam ne xoli Cheikh Ibrahim la xol la boo xam ne yenentu moo ci fees dell bëgg yàlla ak yenentum bi xol kuñ ko kuñ ko xeen boo ko attanut mën naa métteeg yow Cheikh Ibrahima yàgg koo soñu ci xam-xam bind na gis nañu way yu bëri Mouhamadul Amin faqara il kutub Cheikh Mouhamadul Amin jàngal téere yi bul am beneen ittee lu may jàng téere waaye teel koo namm ci bind alhamdu wa shukru maan lillahi summa salaatu min ubaidillahi gis nga way yooyu mu mu way yónnee ko Cheikh Ibrahim Cheikh Ibrahim di tontu alhamdu wa shukru maan wa daawa lidal bunayi fii xalan wa jalwa رديت عنك وحمدت الباقي لا زلت نجلي في حماه الباقي إيه أيا بني ونحو نحوي حرر حلوم الشرع بعد النحوي كن حلس بيتك مع الطهارة وفاخرا في العلم والمهارة ليبر وخرجنا يا كاري باي أمون تيموم نانكو ساكل خمخم خم الشريعة جانجل نحو ديل تقو سنيك دي تقو نجابو تي بوكريو خمخم واي ليلي كان باي صد اي بيتي صاحب بابا نكو فعلو باتي فكسي ماتي ndax ki ñuy wax ba wuldu wuldu abdullahi indil na Cheikh Ibrahima hadiya dalilu nubu dalailu nubuwa def boole ci ay woy bàyyi tontu ko ca baxar boobu ba pare ne Cheikh Mouhamadul Amin yow it def ci ay woy mu def ci ay woy jox ko Mawlana Cheikh Ibrahima radiallahu taala anhu kon bu ñuy waxtaan ci sant yàlla ñun ñu ngi sant yàlla ci xéewal googu nga xam ne mooy njabootu Cheikh Ibrahima gi waaye xéewal googu nga xam ne mooy Cheikh Mouhamadul Amin Cheikh Ibrahim Niass barhamu baun waraun alifun thumma ha